أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu nuy mbokk jullit yi nuyu jullit di nuyu lislaam di ñaan suñu borom subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yéen mande yàlla suñu borom subhaanahu tabaraka wa taala ginnaaw suñu nuyoo la ngi del si waat suñu jotaayu yóbbulu ndaw ñi muy jotaayu jàngale ak fàttali mu mel ni nag suñu jotaay bi mujj ci tasawatu si xaar jàngale woon nañu bunt bi ñuy wax farataay julli farataay julli nag waxoon nañ ñaata la ak yan ak yan la ak ci ab lim ñaata lay doon kon suñu bindub tay nag dañuy fas yéene ñëw ci xam lan mooy sunnaay julli ginnaaw bu farata yi jàllee mu ne fas lun lii ab bunt la fii sunani salaati ci sunnaay julli sunanu xaa ay sunna moom julli xay yun fukk la ak juróom-ñett bi xaa in ci xaa muhmalin gu ñu neenal min xabli yaa in njëkk ak yaa duuna nuunin ci ludul ak noon sax xilaa xelul mu nekkat sunnay julli boo ko bëggee xam ci ab lim fukk la ak juróom-ñett wax la it fukk ak juróom-ñett yooyu boo koy lim ci xalat dangay wax xayin ak yàlla xayin gi ak yaagi lay bañ nag nga tomm yaagi muy ak nuun moo tax mu ne la yaagi ci lu dul ak nuun yaagul neenal la kon mu ne wax ya te moom sunnay julli al iqaamatu mooy liqaam wa suuratul ak saar tafi gog dana dikk min baax di ummi zikiri ginnaaw jàng faatiha faxta fi xencil an xaq dëgg xiyaamu naa sunu taxawaay min ha bokk na ci moom lexe ñeel ko wa akkida ak ngay fekk tey ni ñaar yii su ma xodda topp nga lim jëxran biral xadd ba daa goog feeñ na wa sirru ak yàlla fil mahaal ci barab ba min ha ci moom yan jal yi jot na yàlla badaa feeñ na ak takbiiru xayrul awali kàbbar bu nit kàbbar bu njëkk ba min xaa ca moom mu ne min xaa bokk na ci ñoom ba tey ak tasaxudaani ñaari taaya la wasalaatu ak julli xale la yi ca ka nga xam ne laa yàq sidu du ko jublu alxulaatu noon ya ilaa xadim yi jëme ko ci liggéeykatam ba allah yàlla salla yàlla loolu tedd xale yi ci moom wasallama dool di ko musal kama axlaahu ni ko mu ko kawale fii aalihi ci ak ñoñom wa saxbihi ak ay saxaabaam wa jaxala ak muy def haada nisaama wi la way xayra nuurin muy gën di ak leer xadd xalaa goog kaweel na tilka salaatu googi la julli laa takunu du nekk fii siwaa saani tasaxudaani ci lu dul ñaari taay ñun la man ci kan xam ne xawaa làkk na mu ne kat wala xawaa xam ne kon mu ne sunnaay julli yooyu ba ci njëkk mooy liqaam kon bu dee góor bi julli war naa liqaam bu dee nag ay góor yi mu kalaf yi julli am ku leen di jiite bu ca kenn mu kalaf liqaamee rek ña ca des liqaam nga wàcc na leen bu dee jigéen nag dañoo sopp ci moom mu liqaam waaye buy liqaam it ndànk lay liqaam ci suuf kon liqaam moo ci njëkk ñaareel ba mooy ginnaaw boo jàngee faatixa ba pare saar woowee ngay jàng sunna la ak taxawaay ba ngay taxaw di jàng saar woo tamit sunna la ak li ñuy wax biral mooy jàng ci kaw bu dee yow doo ngay julli ngay jàng ci kaw loolu lay wax biral moom sunna la bu dee nag dañ lay jiite wala yow ngay julli yow dong ci julli goo xam te ni dangaa war a jàng ci suuf ngay jàng ci suuf loolu tamit sunna la lu mel ni julli tisbaar ak takkusaan buñ nee biral mooy wax ci kaw lu mel ni julli suba ak timis ak gée bu dee nag kàbbar bu dul kàbbar bu njëkk ba moom it sunna la kon kàbbar bu njëkk ba rek booy tàmbali julli bi mooy kàbbar bu njëkk ba mooy kàbbaru almal kàbbar boobu rek mooy farata yeneen kàbbar yi ci topp yëpp ay sunna la mu ne ba tey bokk na ci yooyu ñaari taaye yi nga xam ne dañ koy taaye ci biir julli taaye bu njëkk ba ak taaye bu mujj ba ak julli gi ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci taaye bu mujj ba muy salaatu ibrahim salaatu ibrahim googu tamit boo ko manee sunna la boo ko mënul nag salaatu goo man rek nga julli ko nga ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam baax mu daal di ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag daal di wax na nag moom mi nga xam te nii ci barkeem la ko suñu boobu musalee ba nga xamee ne bennam noonam moom miy liggéey yonent bi mooy Serigne Touba mi nga xam te nii mooy liggéeykatu yonent bi bennam noonam mënu koo lor mënu ci moom dara daal di koy ñaanal moom mi nga xam te ni suñu moom def na ko moom yonent sallallahu alayhi wasallam muy aji kawee ci lépp ak waa këram ak ay saxaabaam te mu defal ko way wii mu nekk way woo xam te ni dafay leeral xolu jullit yépp ak xol taaliba yëpp woy wii mu ne nag tamit julli moom daanaka faw mu am ñaari taaya muy taaya bu njëkk ak taaya bu mujj xanaa lu mel ni jullik suba rek te jullik suba sax buñ la ci rawee mën ngaa dem ba def ñaari taaya kon bu dul julli suba rek boo xoolee julli yëpp day am ñaari taaya kon taaya bu njëkk ba ak taaya bu mujj ba ay sunna la ak toogaay ba ngay toog di taaya sunna la dina ko indi ci kanam lixaam nag moom la njëkke nan lañuy lixaamee mooy allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaya ala alsalaati xaya ala alfalaaxi xad xaamati salaatu allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah noonu mooy liqaam mu nekkoon waxut da limeef na min sunanihaa ci ay sunnaam al juluusu toogaay ba lil awali ñeer bu njëkk ba wa aaxiri ak bu mujj ba faxisuu xiyaasaan wa saaidun ak dollikoom ala tumaaniyati ci dal ga summa xadri salaami topp kem sëlmal ba summa jahrun topp biral xat ya um gog jublu na musaahiban mi aji àndaaleeg salaama taxliilin sëlmaluk yewee ko warat rot na salaamina sunub sërmal alal imaami ci imaam aw ahad wala kenn mu daldi wax kon ne na nga limaale toogaayu taaye bu njëkk ba ak toogaayu taaye bu mujj ba mu bokk ci sunna yi te nga tekki tamit ak dal mooy nit ki bu ginnaaw boo xamee ne rukkoo na waxoon nañ ci farata yi ne bu rukkoowee ba dal loolu farata la dal googu muy dal nag ginnaaw bu dalee ba pare nag farata ya jeex na lépp lu mu ci dolliwaat nga xam ne daf ko cee dolli ba mu yàgg loolu sunna la ak sëlmal bi booy sëlmal buy wax asalaamualeykum maanaam biral googu mu koy biral wax googu mu koy wax ci kaw naan asalaamaaleykum moom it sunna la ak sëlmal ga nga xam te ni bu dee dañ koy jiite sëlmal gi nga xam te moom lay sëlmal di ko delloo imaam wala muy sëlmal gi nga xam te ni ginnaaw bu waxee asalaamaaleykum pare am na kenn ku nekk ci wetam nday joram càmmoñam mu delloo ko sëlmal googu loolu it sunna la bu dee nag kenn nekku fa kon genn sëlmal rek lay def muy sëlmal bu njëkk gi wax asalaamaaleykum mu ne nag insaatu maamumin cellantalug maamum mooy maamum wax gi wax ci suuf lalal ijra lalal ijhaay fa biral ga imaamihi sunug imaam wa suturatu ak saatir yaa xaari yow ay jàng li fas ñeel kenn wal imaami ak imaam amma zuqti daa i ndaal muy borom roy fayak fayak tafi dana ko doy bil muxtadaa ci kamuy roy an sitratin walif saatir mu ne nag tamit bokk na ci yooyu tamit bu dee dañ lay jiite dafa am ku lay jiite muy ab imaam bu waxee asalaamaaleykum yow booy sëlmal wala ngaa sëlmal junj ko muy sëlmal bi ngay sëlmal ci kanam imaam moom it sunna la ak bu bu ñu lay jiite tamit imaam bi di jàng ci kaw yow da nga daan tekk di teewlu di déglu moo xam ne yaa ngi dégg li muy jàng moo xam ne déggoo ko da ngay daan tekk di déglu bu dee nag imaam day jàng ci suuf yow nag mën ngaa jàng yow boobaa ci suuf sa faatiha ak saar kon yooyu yëpp tamit sun sunna la ak saatir saatir nag ñu ko waxee mooy kenn nit kuy julli dafa dañoo bëgg nekkee foo xam ne dafa wéet mu jël lenn teg ko ci kanamam lu toll ni xasab te mu nekk bant wala loo xam te ni guddaay bi na toll ni xasab rek te bu mu am sobe loolu la ñuy tuddee saatir bu dee nag dañ lay jiite ka lay jiite moom mooy nekk sa saatir kon yow du jar ngay wut ab saatir ka lay jiite rek ci moom ngay basé wu ka lay jiite nag bu dee nag dafa toog foo xam te ni dafay jullee foo xam dafa am espace foo xam te ni ragal na nit romb fa boobaa moom mooy wut liy wax saatir ci kanam yow miy julli ci ginnaawam nag moom imaam dalay doy kon nag yooyu mooy sunna yi nga xam ne mooy sunnay julli kon bokk na ci sunnay julli liqaam ak jàng saar wa ak taxawaayu jàng saar wa ak biral mooy wax ci kaw ak wax ndànk ki ñoom ñaar ñëpp nag ci barab yañ ko war a defee ak kàbbal bu dul kàbbal bu njëkk ba ak taaye bu njëkk ba ak taaye bu mujj ba ak toogaayu taaye bu njëkk ba ak toogaayu taaye bu mujj ba ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dal ak sëlmal ak biral bi ngay mooy sëlmal bi booy sëlmal biral bi nga koy biral mooy wax bi nga koy wax ci kaw ak sëlmal gi nga xam ne moom lañuy wax sëlmal gi yeewee ko wala sëlmal gi nga xam te ni dangaa am imaam bu lay jiital bu lay jiite nga sëlmal ci kanam wala bu imaam di jàng ci kaw nga noppi ak saatir ak biral gi nga xam te ni imaam daf koy biral bu dee day jàng ci kaw yow nga noppi googu ngay noppi wala muy jàng ci suuf yow ngay jàng tamit sa faatiha ak saar loolu it sunna la ak ak delloo sëlmal imaam waxoon nañ ko léegi kon boo ko boolee muy fukk ak juróom-ñett kon fukk ak juróom-ñett yooyu mooy sunnaay julli kon loolu mooy bind bi nga xam te ni moo nekkoon suñu bindub tey mooy lan mooy sunnaay julli kon sunnaay julli yi daal ci gàttal fukk la ak juróom-ñett waxoon nañ ne farataay julli yi fukk la ak juróom kon boo bëggee jàpp jàpp gaaw lépp loo xam te ni waxoon nañ la ko ci farataay muy fukk ak juróom lépp luñ bàyyi ci julli ga rek. xamal ni kon loolu boo ko dindee mooy nekk sunna kon nag loolu moo nekkoon suñu bindu tey ñu ngi wàcce kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu taax jàmm ju bari ci suñu réew musal ñu ci lépp luy loolee xëccal ñu yëpp yiw ñu ngi jégalu lépp lu fi dëgg nañ xam ne suñu jëm yu xeeb yi la lu fi jub ci suñu borom la ñu leen jox dig daja beneen jamono insha allah in uridu ila al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته